salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu dégg kàddu gi seen mbokk la Abou Ibrahim Mame Gor Ndiaye al imam fii ci Niakou Rab ñu ngi leen di jottali xibaaru jamono te xew ci daawa bi te yàgg cee xewit nag sunu doom sunu mm, mbokk maam Gor Ndiaye Abou Ibrahim Abou Mariam muy Mame Gor Ndiaye Abou Mariam ñu di ko wax Mame Gor mu ndaw di sama doom di sama turandoo maa ko jàngaleer ko yàlla dafa dogal waa Laayeen yi porté ko plainte ci procureur procureur joxe ndigal ñu jëlee ko. yóbbu nañ ko ci benn secteur bu bokk ci police wu dik mu ngi noonu yi dem yëggagul police yi may nañ ko mu wax ak man ba jox ma téléphone bi ma wax ak ki leen jël si ki ko seef bi ko jël si maa ngi nii waaj pour jublu ci kon képp ku dégg kàddu gi xanaa la ñuy jëkkee def mooy ñaanal ko yàlla ndimbal ak tawfiq li ci des mooy lu ci waay mën a xam ci gépp anam eh, nu bàyyi xel na itam Euh, mën nañoo porté plainte maam góor ci tur wi waaye xew-xew yee allahu alam yi ca mën a juddoo daa mën a bari kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp ñu ànd ceeg sago ni ko yàlla ñaanal ko loolu laa leen doon jottali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, ñu ngi dellu seeti ak yéen ci leeral ci lenn ci li nga xam ni ay doomu aadama yu bari rawatina senegal ah, di ay sénégalais yoo xam ni ñu ngi koy dund gëm ko. muy di wax ni am na beneen yonant bu dul yonant bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ni ñoom moom la ñu topp fii ci senegal muy lu doy waar nag di mbir moo xam ni kenn ku nekk ci ñun war nga koo bàyyi xel di muslu yàlla subhanahu wa taala ci loolu waaye di ko dénoncé di leeral ni képp koo xam ne woote nga ni am na beneen yonant budul dul yonant bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ab yéefar la ak ku mën a doon ak fu mën a bokk loolu dafa war a leer nañ ni nag réew la moo xam ni gis nañ fi lu baree baree bari loo xam ni bokkul ci diine ji ay nit di ko wax di ko def te jàpp ni ci diine ji la bokk wala bokk ñu ko ciy jéem a boole benn ci ñi nga xam ni ku ne xam na leen ñu nekk fii ci Ndakaaru ak yeneen i bërëb lañuy woote bokk na ca ne seen maam ab yonante la bañ nañ ko ba boo tuddee seen maam ñu ne alayhi salaatu wa salaam mbaa ñu ni sallallahu alayhi wa sallam bu ci manti doon rek da ngay ci ñoom ñu di ko wax muy pas-pas boo xam ne dafa nekk ca ñoom ñu gëm ni ñoom seen maam yàllaa ko yónni ñaari façon nag am na ci bu njëkk bi mooy am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo gëm ni seen maam ci boppam dafa woote ak nubuwa te mooy yàllaa ko yónni ci jaam ñi am na ñeneen ñu gëm ni seen maam jooju kat mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma juddoo woon Makka faatoo madinatul munawwara ñu denc ko fa muy Muhammad ibnu Abdullah am na ñu gëm ni seen maam jooju mooy Muhammad moomu ñaari gëm-gëm yooyu nag benn baaxu ci ndax benn wéru ci loolu na leer ñi gëm ni seen maam ji ci ndakaaru nga xam ne boo ko tuddee ñun la alayhi salaatu ñi gëm ni dañ yàllaa ko yónni léeg nga dégg ñu nan la aji bu daa yàllaay loolu la woote loolu du lu wér saxul fenn ci alquran ak sunna ci seen maam jooju yàllaa ko yónni loolu wérut ñi gëm ni yàllaa ko yónni seen gëm-gëm boobu baaxul gëm-gëmu kufru la weddi yàlla gu leer naññi la ndax dañoo weddi aayay alquran weddi ahadis yu yonente bi alayhi salaatu wasalaam weddi mbooleem jullit ñëpp nag boroom xam-xam yëpp dañoo ànd maase dëppoo ci ni alquran ak sunna la wéral mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki mujjee wàcc te yonente dootul wàccaat gannaawam ci jëmm ak ci risaala gi bu dee ci jëmm di jëmmi doomu aadama yonent bi alayhi salaatu salaam mooy nit ki yàlla mujjee yónni ci kaw suuf bu dee nubuwa di risaala gi mooy moom ci moom la ñuy mujjee wàcce ak ak risaala risaala gi ko mujjee jox mooy lislaam di alquran ak sunna kon loolu na leer su fekkee ñeneen ñi nga xam ne nag dañoo gëm ni ñoom seen maam du jëmbi yonent seen maam wootewul ak nubuwa waaye ya maanaam mooy jëmbi yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme nañ koy waxee naan ruugi ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam làqoo Madina ruugi daa bàyyi ko foofa ñëw ci xeeri ndakaaru yi am fi nangami junni at ba yàgg leer gi ñu jox ko ndigal mu génn ma ne loola dara wéru ca loola du ak xalaati dof la dara wéru ci yonente bi alayhi salaatu salaam ak ruuxam bàyyi koowul madinatu munawara ñëw fii ci ndakaaru di fi laqatu ci ay xeer loolu wérut loolu du wax ji wér waxi dof la na leer du wax ji wér kon bum ci mën a doon ñaari xalaat yooyu benn wéru ci benn wéru bu ko defee nag ñu ñëw ci li nga xam ni moom moo ñuy saxal ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent du wàccaat gannaaw mooy borom bi tabaraka wa taala dafa wax ni ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasula allahi wa xaatama annabiyin loolu leer na naññi waxi yàlla du waxi nit waxi borom asamaanak suuf la yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi moo ni muhammad du bàyyi kenn ni ci yéen waaye nag ab yonent bi yàlla la dim ndawam te mooy ki yàlla mujjee yónni mooy ki tëj risaala gi wa xaatama nabi moo ko tëj da koo tëj maanaam yonent du wàccaat gannaawam loolu na leer yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naag Seydina Ali radiyallahu anhu keroog ba mu koy bàyyi ca madinatul munawwara eh, di am xare bu doon dem mu ne ko toogal fii ci dëkk bi wuutuma ci jàkka ji ak ndaw ñeeg jigéen ñi mu ne ko ndax nag may bàyyeeg ay jigéen ki ndaw ah mu ne ko xanaa bëggoo nekk wàccuwaayu Haaruna ci Muusa maanaam bëggoo nekk ci man wàccuwaayu Haaruna ci Muusa dayo ba Haaruna amoon ca Muusa nga am ko ci man xanaa bëggoo loolu waaye nag laa baax di yonent du wàccaat sama gannaaw mu leer naññi loolu amul luñ ci amul lu ñuy négocier yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent du wàccaat gannaawam loolu leer na naññi loolu amul werante mu des nag ndax ki nga xam ni dafa woote ak nubu wax ci tayeef génn na ci lislaam wala génnul ci lislaam kooku benn boroom xam-xam werante ci képp ku gëm ni am na beneen yonent bu wàccaat gannaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ab yéefar nga da ngaa yàlla weddi gu leer naññi dajji alquran dajji sunna teg fee loolu moom na leer naññi ci boppu ñëpp. moo tax ñii nga xam ne dañuy woote ak nubuwa fii ci Sénégal ñooñu daganut ñuy julli ci ñoom seen gannaaw daganut buñ rendee waruñu koo lekk loolu dafa war a leer nañ ci bopp képp kuy borom xel képp koo xam ni da woote ak nubu wala wax fii ci réew mi ak fu mu mën a doon ci kaw suuf gannaaw yonante bi alayhi salaatu wasalaam ab yéefar nga ak koo mën a doon li la war mooy nga tuub dem dugg ci biir lislaam maanaam bokkoo ci lislaam yow jarul ngay julli jarul ngay wor képp ku gëm ni yonant bi alayhi salaatu wassalaam gannaawam am na beneen yonant buy existé rawatina fii ci senegal niñ ko fiy gisee fii ci Ndakaaru nga xam ne dañuy wooye seen maam yonant ba boo tuddee seen maam ñu ne alayhi salaatu salaam gëm ni yàllaa ko yónni gëm ni ab yonant la di ca woote ma dañoo war a dugg ci biir lislaam nekkaguñ ci lislaam nekkaguñ ci lislaam ba ciy woote kon loolu lu leer naññ la nañ ko bàyyi xel loolu benn borom xam-xam ci wet weddi waxi yàlla weddi waxi yonent bi alayhi salaatu wa salaam gëm ni am na beneen yonent boo xam ne mi ngi existé nga di ko woote yow di ca jëmale ak nga dégg ko keneen wax ko nga gëmal ko ko ñooyam bu benn waaye doon woote ak yonent ca penku nga gëm ni kooka la muy wax dëgg la génn nga ci lislaam ka koy woote génn na ci lislaam kon mbir moo xam ni mbir mu war a leer la mooy nit bu taxawee woote ni am na keneen ku yàlla yónni ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam kooku ko woote génn na ci lislaam dafa war a tuub yow mi ko dégg ba pare gëm ko génn nga ci lislaam loolu dafa war a leer waxuma nag ay nit di woote di ca jëmale ay ndaw di leen topp ay góor ki jigéen loolu kufru gu leer naññ la weddi yàlla gu leer naññ la yàlla ñu ci yàlla musal moo tax ñu ngi woo képp koo xam ni yaa ngi ci yoon woowu gëm ni seen maam ji yàllaa ko yónni nga tuub balaa faatoo ñëw dellu gannaaw te xam ni loolu ak réer la réer gu sori njub la ak kufru la weddi yàlla la subhaanahu wa taala waxi yàlla subhaanahu wa taala lañ weddi yonent bi yàlla lañ weddi gëm ni bi yàlla yónni na keneen ku dul bi fii ci kaw suuf gannaaw yonent bi yàlla yónni na keneen loolu ku ko gëm pas-pasu kéefër la loolu ñi nga xam ni ñoo ca nekk nañ ca dellu gannaaw bu baax a baax a baax bala leen caa dee fekk rawatina na ñu ciy woote ay woote at mu jot di ci dajale nit ñi di leen gëmloo ni seen maam yàllaa ko yónni loolu ay waxi caaxaan la du wax ju jub du xalaat bu baax loolu maqta la day merloo borom bi tabaraka wa taala ndax weddi waxi yàlla la subhanahu wa taala kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy ki yàlla mujjee yónni ci kaw suuf mooy ki tëj nu bu wagi mooy ki nga xam ni mooy yonent xeet wi loolu dafa leer naññi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa nadhira loolu la ko yàlla wax dama la yónni ci mboolem nit ñeeg jinne yi ngay ab waaraatekat di ab xuppaatekat di bégalaatekat di bégal ñi topp yoon wi waaye di xupp ñi nga xam ne dañoo wàcc yoon wi loolu leer na naññi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la ludul ni yërmande nga ci xeet wépp wépp wépp nit ñeeg jinne yi kon bu fekkente ni daa am ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw di walla mi naan dañuy jéem a wooteeg nubuwa ñooña liñ leen di xamal mooy ci ak réer lañ nekk yal nañ ci borom bi tabaaraka wa taala musal te yal na yàlla gindi leen bala ñoo faatu ci lii te yal nañu yàlla gindi